salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi may seetaan fii si 7 vision TV te nag dañoo wàccoon si dara lii daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay xar yi xam lan moo nekk seen euh, problème ak ndax xar yi ndax yokk nañu wala ñu xoolaale tamit ñi nga xam ne dañuy ñëwaale ci dara lii miir mën a daan seen doole ñi si ni sangkatu xar yi prix ngoo ñi yokku na wala yokkuwul ñu daal dem gëstu leen euh, géem waxtaan ak ñoom. gis nañ ne daaw prix xar yi dafa yokkoon ak coronavirus bi ren ndax prix wàññeeku na wala dafa gën a yokk waaw ren sax nag la prix yi gën a yokk ndax li ko waral mooy xont dafa seer am plus que tamit fu ñu jógee dafa sori xar bu nekk da koy def transport mu ñëw fii di fii biti repas bi lépp nekk suñu kaw dañ si war a am sax ko si amee nit nag lam tàmma liggéey boo heure bu jotee xaram daf say nekk mais yàlla xam ne bénéfice bu ko jar amatu si ñu ñëwee fii tamit dañuy fay place wax naa la ko sànq nee naa la bu ñu ñëwee fii dañuy tëdd fii la ñuy tëdd fii la ñuy lekke fii la ñuy naane. bâche bi ma nekk nii cinquante mil laa fay nii ama may yow sama xar sa kaw bâche bi nag dañ ma limité dama fii ngay yem ñi fii ñëpp ku fi indi xar da fay say droit yu mat man cinquante mille laay fay maa ngi fi indi vingt cinq mettons fay cinquante mille kër gi ne loolu est-ce que kon man li ma jaay mënati naa yomb. chaque jour ñun dañuy def bu ñaar ñi ñett ñi di nelaw ñeneen ñi toog di xoolee suñu ko defee de temps trois heures ñeneen ñi. tëdd nelaw ñeneen ñi toog di xoole ñuy attaaye guddi gi noonu la ñuy def bëccëg bi maa ngi nii fi mu nekk nii damaa waroon dem nelaw yi léegi nii pour guddi gi moo mën a monter deux heures de temps wala trois heures de temps. ñun nooy suñu gardien bopp gisuñu benn sécurité. Dakar amul xaalis. tey laa war def quatorze jours ah. ñaari xar laa fi jaayagoon pour l'instant. ba léegi kon client yi daa mel ni ñëwaguñu de. client yi génnagul. Mhm. parce que dafa am loo aman daaw peut-être ñoom si loolu la nekk mooy daaw commencement seeroon na ñu dem ba fin bi affaire bi wàññeeku xam naa client nag peut xaar ñoom tamit na toog xaar di ànd ak tey jii bu ngeen ñëwee fii di sang ay xaar prix yi ndax abordable na liñ leen di fay ndax baax na. gars yi teguñu ko si yoon gaa ay xar deux cent deux cent cinquante wala trois cent foofu la gars yi yem moom. lan lay sangaloo dix dañuy toog ay quelques jours du la fay mooy loolu quoi xam nga loolu tamit neexu si xol. coronavirus bi dañ koy xool suñu bopp kenn ku nekk bu fekkente ne bii da nga xool sa bopp nekk responsable yor kër yor ay njaboot ay famille. xam nga ne vraiment réew mi xaalis amul yëpp yéen a ko déggandoo seen bopp très chers téléspectateurs et internautes ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax dégg ngeen ñi nga xam ne ñooy jaay xar nuñ ko waxee ne nañ ko ren moom xar mënul yomb ndaxte seen kaaraange ñoom ñoo ko resal seen gooñ yi wàccul ripaas bi wàccul donc dina jafe lool lool lool lool ngir xar mën a yomb ren waaye du ñu fàtte benn ñoon ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sang xar yi mooy xale yi nga xam ne dañuy daan seen doole ñëw fii ci ci daral bi ngir mën a am lu ñu suturloo waaye ñoom tamit nee nañ prix yi ñu leen fay abo abordable benn yoon kon yéen a ko gisandoo dafa mel ni Covid 19 bi am na benn impact ci tabaski bi nga xam ne moo di waaja a ñëw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon di ñu sitaan fii ci 7 Vision TV di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi